yéene kaay yeeg Serigne Saliou Seck dal leen ak jàmm tabb yu yees yi rot démb gannaaw conseil des ministres moom la yéene kaay yu bëri yi nu xëyandool xëy di wax l'observateur ca la bokk journal Futurs Médias armée bi moo ci gën a yëngu njiitu réew mi di président Macky Sall delloo na confiance juróom-ñaari chef d'armée Souleymane Ndéné Ndiaye mi nekkoon PCA Air Sénégal SA jële nañ ko fa teg fa militaire di général de division aérienne Joseph Mamadou Diop Abdou Khadir Agne mi nekkoon ambassadeur extraordinaire ak plénipotentiaire bu réewum Sénégal ci moom it général El moo ko fa wuutu yéene kaay bi yokku ca ne bi ci gën a ràññeeku moo di tabb ko colonel Souleymane Kandé def ko yees chef d'état-major de l'armée de terre mu ràññeeku woon lool la ca opération yan doon amal ca àllub Casamance fexe ba daane la base ya fa rebelle yore woon te Salif Sadio jiite woon ko enquête yéene ne général Maïssa Sélé Ndiaye waroon na dem à la traite président de côté tribune yéene ne président kay combat bi mu doon wax moo nga fàttali ne Bibi itam dàq nañ ko démb ci conseil des ministres le président de la république jële dogal jële Abdoulaye Bibi Baldé ca bopp groupe La Poste ba mu doon jiite gannaaw léexoor ak yorin gu bon goo xam ni liggéeykat ya fa nekk yàgg nañ ko koo tuumaal inspecteur des impôts bi di Ibrahima Diéyité moo ko fay wóotu réew mi quotidien ne poste kay ci naax saay la jëm journal Le Fane moo tax ba njiitu réew mi jëlee na fa Abdoulaye Bibi Baldé mi fa nekkoon loolee nag dañ ko cee booleel mbiri passeport diplomatique yoon tuddoonu turam ca palais de la république ñu ko cay woolu lii tax yéenekaay bi ne moom Mahmoud Saleh dellusiwaatuk Amadou Ba jigu ko L'As Quotidien lu ci mën di am daal njiitu réew mi di président Macky Sall jël nay dogalam tabb ñi folli ñële boole ci soppar ñi l'armée bi le Quotidien armée ba nekk ca diggante Russie ak Ukraine lan fay def mbootaayu xeet yi di organisation des nations unies àndunu caak hydrocarbures yi ñi ci yore wàllu pétrole bi gannaaw bërëb ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ci xaalis CFA bi leen nguur gi yoreel tax na buñ ci gaawul te sàkku pexe jamono yële di ñëw réew mi mën naa ami jafe-jafe ci wàllu wu mel wàllu yoon yi ci dem bekk dikk bi moom la Sud du Quotidien xëy di wax yéenekaay bi ne tali yi nekk ci diwaanu Ndakaaru moom seenu melokaan na la ko yàlla nëbb ndax nag bëri na ci yoon yoo xam ne dañoo dog yii di taa ak ndoxe taw yi ya moom kenn mënu faa jaar mbëbës ku fa jaar sa yaram dina daw bés bi la journée gune yu am juróom-ñaari at ngay gis ca mbalin ma ñu lànk ne duñ fa jugee ëpp nañ fa ñaari téeméeri tu tànk am ci sax ñoo xam ne seenu ko naqari deret jamono ji jéggi na dayo lii tax yéenekaay bi ne faawu nguur gi wàllu leen nguur geetu war naa andi wàllu ci dund gu cher gi le témoin mel ni ku naan kon nañ ko doore ci moutarde bi ndax nag journal bi nee na moutarde bi Europe ga koy defar jamono ji dañ cee ami jafe-jafe lii tax journal bi jàpp ne ci jamono yi di ñëw itam réewum Sénégal mi ko daan jële ca Europe nar nañ ko manqué le soleil national ne li njiitu réew mi di président Macky Sall bëgg kay bu lépp sottee réew mi ci li gën di dundee dootuñu ci am benn jafe la république démb ci conseil des ministres rek waxaan na ko nee souveraineté alimentaire la bëgg te nag ci weeru décembre atum 2022 bi bëgg na cay résultat évidence yéen kaay ne Aly Ngouille Ndiaye yore wàllu mbay mi moo tax ba faaw mu nekk ci pression les économies bi la yoon kay njiitu mi di président Macky Sall da cee dogu nee souveraineté alimentaire la bëgg Malick Gakou ci Walf Quotidien ne li muy xelal président de la république ko journal bi fa coow la doore ba ni nu rayee Baye Bass ba ñi ci gendarme yi tege fukki nit ak ñaar ca dëkk ba te imam Bakk borom dëkk ba bokk ca lépp la xëyaat di dikk benn benn benn benn ci ñi nekk ci internet bi di saaga kilifa yi nekk ci réew mi ñoom la takk der yi teg bët jamono ji libération yéen kaay ne El Hadji Abdoulaye Dione mi jiite liggéeykat yi hôpital Aristide Le Dantec vidéo la def ci général Moussa Fall ak waa police di ca wax ko neex gannaaw ba mu defaat beneen vidéo di jéggalu waaye journal bi nee na loolee lépp ba takk der yi jëlee nañ ko ba jamono ji caabi féete na ko gannaaw